émotion bu rëy ci jotaay bi ma yàlla boole boole ko yéen ndax jotaay bi dañ ko dippee nitu yàlla boo xam ne léppam dafa xaw a euh, baatine lu ci bare bari te dafa damay àbb rekk la cheikh na ahmed tijaani shérif al xasan al fatimi waxoon ibrahima rayaaxi ibrahima rayaaxi mu bind saaxir kabil azma laa taxlut ila al yaasi wasxab ahal xazmi za jiddin ila faasi waaw daam ngeen dégg góor gi dam ko way ala jabdu xawsul baraya abul abbaasi ahmadu man maanaahu azamu an yujla bi qirtaasi dafa am ku bañoon lool Cheikhuna Tidiane yi léegi nag Ibrahima Rayaaxi ñëw ci moom ni ko ah, man de dama mënuma bëgguma yeewoo ci pàkk boo xam ni dinaa fa yeewoo ak ku la bañ ndax xam sa cër ci yàlla ndax man aadaani waliyan faqad aadantu bil harb mu ni ko dooma may ma jëflanteeg moom rek ci baatin Cheikh na Tidiane ni ko ëpp naa def ci la waxee ab yaatam yooyu mi ngi ci fatxu rabbaani yi déedéet ci waaw mi ngi ci fatxu rabbaani waaye mi ngi ci jaawul maani ayyuhal mu'ridu anna inna i'raadaka minna law aradnaaka ja'alnaa kulla ma fiika yuridnaa loolu Cheikh Tidiane ko wax te da ko wax sax alaa lisaanu xaali boole nitu yàlla ñoom ñëpp noonu la ñu mel dafa ni ko kii ma bañ misaal la ni yàlla ko bëggul ñu ni ko bañ bi may bañ màndarga la yàlla bëgg ko moom moo tax loolu bu mu la jaaxal ku ma bañ rek jàppal ni yàllaa lay wan ci moom ni man yàlla bëgguma ko moom ni su ma ko soxla woon tamit mu ñëw waaye malheureusement tànn naa samay taalibe ci azal waaw xutbul wujudi lazi abda wilayatahu rabbi wa aadamu bayna al maai wa tiini waaye loolu nitu yàlla itam dañ koy donn ci dañ koy donnante ñoom ñépp te kii tey ku fi ñëw li ma bëgg a wax rek mooy ku fi ñëw tey leeru alaaj Mansour la yi nga ñëw waaw ku ci ku ku war a ñëw dinga nga ñëw ku ku war a woon ñëw it <laughs> di nga am ngànt ba doo ñëw te loolu dina feeñ ci biir incha allah buñ ci dañ koy tënk rek waaye dañuy gërëm awalan balaa ñuy wax ci suñu baxs bu am solo bi nga xam ni mi ngi ko tuddee alkawkabul munir fi l baxs an cheikh alxaaj Mouhamadul Mansour radiallahu anhu ñu gërëm sëñ Omar Silla di ko ndokkeel ndax bind téere bi mu def sëñ Ibrahim téere bi mu def dafa am ñaari aspect yu ci feeñ bind ci nitu yàlla nit ñi mën ko jariñoo waaye itam gën a ràbbale al alaaq allati tar tartakizu bayna al usra al cheikh alxaaji malik wa usra axiihi wa xabibi wa xabibihi a cheikh alxadim radiallahu anhuma maanaam moom jëf jii mu jëf rëy na ci rëy boo xam ni mag ñi fa ñu nekk ca àllaaxira kontaan nañu te ma àbb usul mooy wax al ibaratu bi amul lafzi la bi xususi sababi àbb naa làmmiñu alxaaji abdul aziz si ba mu demee seeti sëñ abdu qaadir julli juma liqaamal ko mu jiite ni ko yaay imaamul aimma loolu yàllaa la ko defal mu jiite ba noppi ba muy ubbi kàddu bi dafa ni aalamu ilmal yaqiini ni sama ñëw bii suñu julli bii yàlla kontaan na ci mag ña ca barzaq kontaan nañ waaye yow it sa jotaay bi yàlla bég na ci <clears throat> mag ñi fa ñu tëdd kontaan nañ ci ndax njabootu maam Cheikhul Xadim bu bindee ci njabootu Cheikh El Hadji Malick loolu rafet na te nag bari na ci loo xam ni amaane réew mi ñu ngi ci dox ñàkk xam rek waaye mag ñu réeroowuñ ci dara si radiallahu anhu ñoo bokk ndey ak baay mag ñi dañu nettali ñu wax ni maam alaaji malik radiallahu anhu maam safiyatu dafa ñëw ci moom ni ko ñaanal ma ma am doom ju góor ndax moo moom moo taawloo soxna fas yi soxna fas yi mooy taawu Cheikh El Hadji ci góor ak jigéen ba mu ñëwee ci moom lii sëriñ Mbay si Abdou ma nettali bind naa ko sama baax si bi ma def ci maam Abdou ba ma àggee ci maa laaj moom soo andi naa ko mu ni ba mu ñëwee ci moom ni ko dama bëgg nga ñaanal ma am doom ju góor maam Safiyatu ni ko nag subbi naa mbubbub soxna ak boroom këram mais dama fi ñëw ci tànku taalibe ak sëriñam maam Safiyatu wax ko loolu maam Cheikh Hadj ci kaf ni ko danga may neexal ko danga may weexal ñu ni maam Safiyatu da daan cuub di jaay la mu dajale ci capital mu xaaj ko ñetti xaaj jox ko maam Cheikh El Hadji benn bi jox ko ko xaalis beneen bi mu jënd ay téere jox ko beneen bi mu jënd ci ñetti nag yu góor weexale ko Cheikh El Hadji Malick maam El Hadji woo ay mag juróom-ñaar lañ sëriñ Alioune Guèye ci la bokk sëriñ Cheybatu Fall radiallahu anhu sëriñ góor gi Alpha Thiombane góor gi Ahmed Cissé radiallahu anhu mag ñooñu la boole jox leen ay wird ni leen nañu ñaanal soxna si am doom ju góor Pape Serigne Mbaye Abdou nettali leen ne man juróom-ñaar yooyu yonent bi ci la bokk ci ñu doon ñaan wallaahi mu ni ba soxna si muccee mu tuddee ko yonent bi teg ci Mansour kon Alaaji Mansour ndimbalu yàlla la moo tax mu daan wax ni moytu leen ma ndax ñaanu mag ñi la <laughs> waaw maanaam moom mag ñee ñaan pour ma ñëw man dañu sàkku sama ñëw moo tax loolu looloy secret Mansour bi ci El Hadj Malick teg mais yonent bi la ko tuddee Mouhamed teg ci Mansour wan ni ndimbal nga bu jógee ci yàlla moo tax sëñ Babacar daam ko wax ni Mansour Mansour min indillah Mansour Mansour min indillah moo tax daam na wolofal di wax ni man de kuñ ma tuddee ñaar dina ne ci yow di nga mën di nga suur mën suur <laughs> waaw nga mën di nga suur ba Baye Mansour Mbaye moom lañ ko tuddee moo ko yar nee na maa alaaj Mansour bu la daan defar ci goro la lay defal day jël goro rek yéey ni la joxal jox ni la yéeyal nga ubbi ko góor gi alaaji mbay déggal mooy papay Abdou Aziz mbay bi ñu bokk ne ci délégation bi alaaj Mansour radiallahu taala anhu moo ko yar moo ko yar moo ko defal lépp fa tabaarakallahu nee na bés mas nañ toog nee na ma alaaj Mansour radiallahu anhu ni ko ndax bëgg nga gis Cheikh na Tidiane mi ni ko waaw mu jox ko benn mbind bu xonq ndax moom bu daan bind lu ci bari mbind bu xonk la daan bind boo jëmee fii ci daara ji man sëñ Bay Abdou dugal na ma ci néegu biiram wan ma bind moom alaaj Mansour mu ni ma bu daan bind day fay lamp bi tëdd day fay làmp bi ci ci lëndëm bi mu ni ba pare tëdd jaaxaan di bind mbind yu xonq teg naa ci sama bët wallaahi da ngay foog ni machine a ko bind ndax dafa mënoon bind moo tax daam na wax baayam man lu tax ma teel mën a bind ndax ba muy tontul baayam lettre yi daan jógee ci dëkku yi boobu dalagul laxdar yi maanaam amagul juróom-ñaari at ndax dafa teel a yàllaa ko teel a kii ay mbiram léegi ba mag ñi ñaanee maam maam maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu ni ah maam Safiyatu dafa mel ni sa weexal bi la yàlla nangu ndax ñetti nag yu góor nga ma weexal mu ni ko di nga am ñetti doom yu góor yoo xam ne ay ponkal la ñuy doon ci tarixa bi muy ñetti nag yu góor yu mu ko weexaloon muy El Hadj Mansour maam Abdou ak maam Habib moo demoon ni azar moo tax ma El yàlla yàllaa ko ko defal am na sànq mbokk mu ko wax mbiru jinne yeeg yooyu xëy na loolu dinañ ci ñëw waaye sëñ Mansour borom daara yi man mii nettali na ma ñu toog ñu seeti ko man ak benn doomu seeti jamil ñu toog nii mu ni mu ni mu ni gars yi ndax xam ngeen lu tax may xëpp xëppal sama bët yi ñu ni ko déedéet mu ni sam bàyyi sëñ Babacar dama am juróom-ñeenti at mu yebal nañu ci ma alaaj Mansour ni ma demal wool ma sa bàyyi alaaj Mansour sëñ Mansour borom daara yi nee na ma dem ñëw fekk ma alaaj Mansour di jàngal ay jinne nee na ko nuyu rek ndax dafa mënoon way ni nga ko waxee ci maanaam injazatu al almiya shaar pire la woon ci jamonoom sax mag ñi daam nañ ko woowee amiru shuara bi ñu dippee euh, kii Ahmed Shawqi daam nañ ko ko woowee dafa mënoon way da ko nuyu rek ni ko yaa Ahmad al Mansour yaa najla al xalifati laa zilta mansuuran la daa kulli wijhati nee na bés boobu leen ko yow xam nga ni e bi nga doon xalif général Tijaani yow ca booba jamono boobu mi ngi am juróom at fa tabaarakallah moo tax yàlla daf ko téela a ubbi ci ci boobu fànn donc juddoom noonu la alaaj moom su tàqaliwu ko wul ak bàyyam 22 ans na sax wax ko góor gi Ahmed dem bu sookoon ni ko dama bëgg a tukki dama bëgg a dem ci dëkku arab yi jàngi dooma ko waxal sama bàyyi ndax rus naa ko ko wax mu ñëw wax ko maam maam Cheikh El Hadji Malick ni ko nee ko na toog nee ko dina am sëriñ bi gën ci sëriñ yi te mooy man moo tax bàyyam moo ko tàggat defar ko yar ko xalban wu mu xaalaban def ci moom lu bare bare bare bare fa tabaarakallah euh, góor gi euh, Ahmed si góor gi euh, sëy ba góor gi ma tudd léegi Ahmed Dem bu Sokone radiallahu anhu ba ma alaaj Mansour génnee àdduna daf ko waxoon benn naar naar bu nekkoon Mauritanie muy wax ak ma alaaj Mansour ci ndawam ni ko yow xale bi maa laaj Mansour tonn ko ni ko maa leen matan ah, te boobu ñaaree at ni ko yéen ñëpp maa leen mag mu ni ko nee leen yéen a ma njëkk a judd waaye maa leen mag mu ni ko ah mi ni waaw mu ni ko ndax xam ngeen ni suuf si yàlla bind maam Cheikh El Hadj ba mu desee ci la ma yàlla bind moo tax moom portrait maam Cheikh El Hadj Malick ni ko suuf si ma yàlla bind ci la ba mu bi mu bind Alaaji Maalik ba mu desee ci la ma bind moo tax góor gi nekkoon ci nu mu tuddati Mauritanie bokk ci njabootu euh, Tijaan ibnu Baba al Alawi radiyallahu anhu bi bind maanaam Munyatul Murid ngi noonu nee na ba mu ba ñu tàggee maam Alaaji Mansour ba mu ñëwee li mu njëkk xool mooy la ko Alaaji Mansour waxoon ndax nee na ci xam-xam suuf si ñu la bind suuf soosu ci ngay génn àdduna suuf si nga bind suuf soosu si ngay génn àdduna nee na ba mu ñëwee moom li mu njëkk a xool mooy fan lañ denc ma alaaj Mansour mu ñëw fekk ñu denc ko ci raw Cheikh El Hadj Malick sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Touré bu Maam Hadi Touré moo ma nettali ndax maanaam xayaatu xayaatuhu alfaasi bi bu Maam Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh bind naa ko ci sama mémoire moom ci boppam jox na ma ay téere yu bari moom ci boppam a nettali ni baayam mam haadi moo leen nettali ni xasida bi nga doon jàng léegi dinañ ci dugg tuuti rek abdul aziz amil qalba usika wasiyatan anka tashfi kulla ma fika mu ni wax na ci biir mu ni loolu testament la mu ni xam maa lañ Mansuur radiyallahu anhu sëñ Babacar dafa génn àdduna altine talaata àllarba ajjuma waxtu xadara ba ñu julli timis ci lañu denc maam laaj Mansuur te ba ñuy ba Cheikh sëñ Babacar génnee àdduna ñu ñëw ni ko gannaaw bukki mbaar mu ni waaw bu mbaar demee yóbbaale maanaam bu bukki demee yóbbaale mbaar nag mu leen man duma fi des toog di donn sama sama sama mag sëñ Babacar te sama bi moo doon jàng maam Abdou la ko jox tegal ko si xasida bi Abdoul Aziz Al Qalba moo tax ci suuf mi ngi naan ko xusaa yaa axi siqatan maanaam lii na nga ko téye jàpp ko moo tax même ba sëñ Mansour tam Alaaji Abdu ba muy génn àdduna moom it lu mel noonu la ko defal bu bushra ko mu Mansuur xat wul lii tumu sirtal xilaafati euh, mawlid az-zamaani mi ngi ko bind alxamis ajjuma samedi dimanche mu génn àdduna donc ñoom ay seeni mbir dafa xaw a dafa xaw a doy waar dafa xaw a yéeme léegi nag ba ba mu ko ko joxee daf ko ko jox ak beneen secret loo xam ni leneen la ak jox ko làmp torche moom maam maam El Hadj Mansour jox ko maam Abdou ba ñu bu ñu ñëwee di ko denc Cheikh Tidiane Touré nee na seen maam Haadi Touré radiyallahu anhu ak ku ñu wax góor gi alxaaji Mansour Ndiaye mi ngi dëkkoon waagu ñaay alxaaji Mansour lañ ko tuddee mu ne ma doom man maa gas bàmmeel bi mu ne waaye ba ñuy gas dafa amoon kekk bu xaw a dëgër nee na fu ñu gas ndox génn fu ñu gas ndox génn fu ñu gas ndox génn nee na ñu ñëw ba fi maam Cheikh Hadj Malick tëdd mu ni moo tax da ngay gi woykat ba naan moom la ñu uufal baayam mu ni lañu ko baayam dañ ko bootal baayam mu ni ndax ñun ci ñi ko denc ci lañ bokk nee na ba ñu ba ba ñu ba ñu demee ba mënuñu ko denc nee na dafa ña ñoom ñoo ñaan Cheikh El Hadj ni ko boo wattu woon tuuti ñu denc fi maam El Hadj Mansour billaahi wallaahi mm-hmm. nee ñu dégg bàmmeel bi puus tuuti ci lañ ko dugal foofu moo tax moom ay mbiram mag ñi daamuñu bëgg sax di wax mbiru maam El Hadj Mansour parce que ay mbiram dafa xawoon yéeme ba mu ëpp beneen bi ci des mooy ci ci ay niñ ko waxee ci ay kéemtaan yi ko yàlla defal ci wàllu xëy na daam na dimbali ay nit waaye ci wàllu kéemtaan di ko yàlla defaloon ci wilaayam gis ngeen la xewoon ca nu mu tuddee ti paate xewe fa lu bindee afil basitati bi nga doon wax léegi